ba nu ñëwee école ba léegi dafa mel ni équipe nationale bu nekk regroupement restauration formidable entretien formidable hygiène propreté formidable bu nuy jàngi nu dugal leen ci seen oto ñu dem jàngi ñu toog eh, di di xaar bu nu wàccee vigile yi dugalaa leen ci oto bi indi leen fële amul traîner ci mbedd mi mais lu mel noonu tax na ba xale yi actuellement ñoom ñëpp au fond de examen bi rek lañ def seen kanam te yaakaar naa ni bu ci eh, seytaane duggul InshaAllah, bu ci chat dugul dana ci résultat yu ne am ci examen yi ci kanam li ci mi avec cette rupture affective entre nous ak sen directeur bi nga par exemple lien affectif très profond depuis que annonce bi am ba ils sont plongés dans un désarroi ça il faut le dire Nous, ne gannaaw grâce président de la République, on fait appel à sa clémence pour que nous sursoir ordre de service bi bàyyi kii mu agalé mom bu baba mom moy xam fan lay affecté euh, ki mu namé won ba paré alors l'ol c'est une demande bind nañu mémorandum dans la pure courtoisie des terminologies adressé à pour demander ko lu mel noonu ah ñuy ñaan nak yalla na ñu dégg ñuy ñaan dana gis ni ñii li taxone ñu laaj li li mo taxone amunu nak parce que c'est à clarifier amunu benn benn xarma yalla ak ki ni leen fi indi benn xarma yalla sénégalais la citoyen la amna droit prétendre à une carrière à une promotion nommé nañ ko xamuñu ko ko nommé xamuñu ko proposé mais droit wam la waaye nag ñu tam bu doon suñu sago it ki nga xam ne moo fi ne di liggéey te ñu am ci moom yaakaar te ñu xam ne dem bi dana indi benn rupture bu méttee métti bu doon suñu sago ñu bàyyil ñu ko fi alors loolu mooy illalu daja tey bi ñu ne nag gréew nu ko marche nu ko contesté wunu dénoncé mais on fait appel à la clémence du président de la République père de la nation pour que Madame mesure bi mu jël té ñun mu dal suñu ko metti lool mën wax ni ñun sax luñu tabaski Dénga mu dal di ko comme ni muy accordé grâce présidentielle la veille de la tabaski